mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuy di leen ziara bu wér seen xarit la seen rak faatuwaal Wade fii ci Ndar Raññ Info te ñu ñëwoon fii Touba ci màggal 2021 bi euh, di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla ko fi yàlla bàyyi ak wér-gu-yaram gu bëree bari incha allah ci suñu kanam te ñu ngi woon fii ci Daaru Xuddoos kër Sëriñ Soyibu Mbàkke euh, fas yéene leen euh, wan lépp lu nga xamante ni mu ngi fi xewee ci màggal gi ak lépp lu nga xamante ni muy organisation muy waañ bi muy lépp lu nga xamante ni mi ngi fii am incha allah kon ngeen topp ñu kanam ñu wan leen lépp lu nga xamante ni am na ci Magal 2021 bi.

mbokk yi baaxee di seetaan Daaraañi info ba tey ñu ngi fii ci Touba ci màggal bi nga xamante ne mooy màggal 2021 nekk fi nga xamante ne mooy Daaru Xuddoos léegi nag ñu ànd ku nga xamante ne macha allah soxna su baax la su nga xamante ne fekk nañ ko fi te doomu sëñ bi ñu bàyyi leen nag mu leen boppam soxna si maa ngi leen di ziyaara di leen nuyu bu baax a baax di rafetlu seen taxawaay ci bis bi rawatina fii sëñ Soy bu Mbàkke Koso. macha allah soxna si nga fàttali ñu tur bi ak sant bi rek. Ah, soxna baali Mbàkke la. soxna Ba li ñu fekk la ci màggal 2021 bi nga ciy def liggéey bu nga xamante ne macha allah liggéey bu am solo la ñu lay laaj rek màggal gi 2021 nan nga ko gisee ak nan lañ ko waajalee. waaw màggal gi moom niñ ko waajalee mooy màggalu mbégte ak sant rek mënuñu ko waajalee lu dul di ko waajalee ci mbégte ak sant Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul mi nga xam ni moom moo waral lii yëpp. waa kon mbokki téléspectateurs yi ba tey ñu ngi fii ci Daaru Xëdës kër Serigne Soy bu Mbàkke Koso tey ji ñu fekk fii suñu papa ji toog nga xamante ne gan ci màggal gi papa ñu ngi lay nuyu di la ziara tur bi ak sant bi ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ndiogu Seck di taalibe sëñ Chouaïb bi Koso. waaw kon papa tey dañ laa fekk ci màggal gi di màggal Touba 2021 ñu lay doon laaj tey na nga gisee màggal gi. waaw màggal gi ni ko gisee mooy alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla ci li sëñ Touba woo ki ñu sant sa boromam di sant Serigne Touba eh, màggal gi de alhamdulilah rabbil alamin nag lañ ci doollee wax ndax eh, xéewale na lool lool lool. ndax fii ñu nekk di kër sëñ Souhaïbou Kosso yàlla dogal na bokk nañ ci taalibe yi nga xam ni yàgg nañ fee màggal si man naa lu ma 30 ans wala 35 ans ni maa ngi ñëw di fi màggal si waaye li ñu fi gis daal mooy xéewal ak yokkute waaw loolu moom. macha allah kon suñ papa jo wax ci lu am solo te ji ñu la doon laaj ci màggal bi ak Covid bi tey boo amoon lu nga xamante ni moom ngay jagleel mbokk taalibe yi ci prévention wala nga may ñu si rek nga baaxee ñu si. waaw Covid bi de li si am rek mooy ñu doole ñaan sunu boroom rek mi nga xam ne mooy tege jàngara moo koy teggi di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jëleel. moytu gi mu ngi am xëy na xaw naa jafe ndax mbooloo moom fu ñu dajee mbooloo mu toll nii wax dëgg yàlla respecté ko fa dina jafe lool. waaye nag lu jar a bàyyi xel la ndax ñëpp xam nañu mu ngi si àddina bi mu ngi ci réew mi kon képp ku mën a moytu loo mën a moytu rek na ko moytu daal tey ñaan ndax ñaan moo yor lépp kontaan nañ ci yow macha allah ba tey ñu continuer ànd ak yéen rek wan leen ñeneen ñi nga xamante ne eggal leen ci màggal gi walleen leen tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci waañ bi nan lañ koy dundee kon ñu ànd ak ndar ràññi ba tey rek walleen leen li ci màggal 2021. ndar ràññi ba tey ñu ngi fii ci kër Serigne Souhaïbou Mbacké Kosso ginnaaw ba ñu jógee ci ñi nga xamante ne ñoo daloon fii te jógee Thiès ñu ngi fii ci ñi nga xamante ne ñooy waa Médina kon euh, yaay ñu ngi lay nuyu di ziar tur beeg sant bi. maa ngi delloo ziar maa ngi tudd euh, Khoudia Fall ñu ngi dëkk medina rue 13 angle 8 kër Tika. yaay Khoudia ginnaaw bi ñu la fekkee fii ci màggal gi ngay def liggéey bu nga xamante ne am na solo ñu ngi lay laaj tey màggal gi noo ko gisee woon. gi comme comme ni rek. moom saa su day gën di neex saa bu romb rek nga ne bii moo daax ànd seen mbégte ñëw te euh, ñëw ak jàmm ziar si ñëw kër sëñ sooy bi biñ deetu tànk ba léegi fi la ñuy ñëw ànd ak suñu yaar muy katika Adja katika moo doon suñu jëwriñ comme léegi yàlla la def na génn na àddina même jour magal bi sax ak suñu sooy bi suñu xel day dem ci ñoom saa su ne ñoom benn la daal macha allah neex na yaatal nañu benn euh, ubbil nañ benn maanaam ay njaboot la ñu daal benn la ñu fii la ñu mës di nekk ñun ak ñoom. macha allahu taala ñu dégg suñu yaay kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne wax na ko ci mu jëm ci sëriñ Souhaibou Mbacké te tamit jëm ci màggalu Touba gi waaw kon ba tey ñu ànd ak yéen rek kon ànd leen ak Ndar Raññ info ñu wane lépp lu nga xamante ni moo am ci màggal 2021 bi incha allah. ñun nga xam nii ñu dëgg lañu ay tuut tànk lañu waaye